assalaamu <laughs> aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu samay mbokk samay doom samay soppee ñu ngi màggale ci guddi gi de ngir fàttaliku suñu sang bu sell booba nga xam ne moo juddoon ci guddi fukk ak ñaar ci weer wi muy gàmm bu jëkk ga ñu ngi fàttaliku ki nga xam ne moo gën a màgg ci mbooleem lu yàlla bind ñu ngi fàttali ki nga xam ne moo gën a sell mbooleem lu yàlla bind ñu ngi fàttali ki nga xam ne moom la yàlla def muy di jëm ci mbooleem lu yàlla bind ñuy fàttaliku ci nga xam ne moo xett li doomu aadama ci muy jaamu leneen lu dul yàlla ndox ak jaamu lu dul sa borom ki ci xettali mbindeef yi moo di yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi moo ñu goreel ba waratuñoo nekk jaamu kenn lu mooy yàlla mi nga xam ne moo ñu sakk loolu mooy ngore dëgg-dëgg moo goreel xel yi goreel roxo yi dañ dootuñ geesu leneen lu dul yàlla dootuñ jaamu leneen lu dul yàlla ki indi teraanga jooju ci àddina mooy ki indi jàmm ci àddina moo ñu xoo ñu jëm ci gëm yàlla gëm yàlla ki nga xam ne moom kenn rek la amul bokkaale du ci jëmmam du ci meloom du ci jëfam moo fi nekkoon ba fi dara nekkut moo fi des bu fi lépp jógee lépp lu am lu dul moom mooy ki ko xamal te lépp lu mu xamal dana ko ñàkkal des moom kenn kooku rek moo di buur bi nga xam ne moom rek moo waxe yoon ñu di ko jaamu kooku it mooy buur bi nga xam ne moom rek a xam teraanga mooy buur bi nga xam ne itam lépp lu mu am ci teraanga may na ko yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam may yonent bi nag képp ku gëm yàlla gëm yonent bi yow it doon nga teraanga jooju moo tax ñett rek a xam teraanga yàlla rek a xam teraanga ak ab yonentam ak ñi gëm yàlla ku dut loolu ku dut ku gëm yàlla teraanga jooy konte muy teraanga it toroxtaane la ci bëtëb ña nga xam ne am nañ gis-gis yàlla moomu ku ko xam gëm ko dëgg-dëgg da nga tedd ci moom teraanga yoo xam ne dootu ànd ak toroxte mukk da nga mag itam mag goo xam ne kenn du la mën a suufeel teraanga dëgg-dëgg mooy ñu jële ci gëm yàlla ak topp yàlla niroowut ak beneen moom lañuy wax xes du taati teraanga jóge ci topp yàlla kooku yonent yàlla yi la ko yàlla may gannaaw bu yonent yi wee ñi gëm yàlla ñoo ko donn ku nekk nag ak sa kem maqama gëm yàlla goreel nañu moom yonent sallallahu alayhi wa sallam bañ xam ne waruñoo ragal kudut yàlla waruñoo yaakaar kudut yàlla waruñoo toroxlul kudut yàlla yàlla rek moom moom loolu ci doomu aadama mbooleem bindee fi ci def yépp ay jaam lañ ay naaw ne lañ ci ron yàlla ak yàlla jooju nga xam ne moom rek mooy suñu yàlla muhammad mooy njël benn ak jaam yi moom mi nga xam ne moo gën ñépp te moo tax ñu sàkk lépp mooy ci rammu ëllëg ñépp bés ba nga xamee ne dem nañ ca aadama mu ne sama xel daju rammu tay ñu dem ci nuux mu ne sama xel daju ko ñu dem ci ibrahim mu ne sama xel daju ramu ñu dem ci musa mu ne sama xel daju ramu ñu dem ci isa mu ne sama xel daju ramu dem leen ci muhammad ñu ñew mu ne man may ci ramu tay taxaw ramu leen ñom yonenti bañ xel bañ mëna taxaw di ramu yonenti la jëk ramu bañ mëna ramu mu ramu wali bañ mëna ramu muy ramu nak da mujj di jële ci safara ku yóbbu ci aljana di rambu di rambu ba nga xam ne na ne léegi daal yàlla dara desut ci safara lu mooy ñi nga xam fa tëj mooy ñi yàlla mooy képp ku bañoon a wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah waane baat boobu képp ku ko wax te xam ne gëm nga lim lamboo ne waruloo jaamu kenn lu mooy sa borom kooku moom dara du fayam lu mooy aljanna yonentu war na ci jëleem togg maas ibnu jabal bañ demee ba ci yoon mu ne ko yow maas mu ne hoyu naa la yow yonent yàlla mu ne yow maas doomi jabal mu ne hoyu naa la yow yonent yàlla mu ne yow maas doomi jabal mu ne hoyu naa la yow yàlla mu ne ko ndax xam nga luy xàq yàlla ci mbooleem jaamam yépp képp kum bind mu ne déedéet yàlla ka bi yonent ma xam mu ne ko xàq yàlla ci képp kum bind mooy nga seede ne waruñoo jaamu kenn mooy moom ndax xam nga luy xàq yu jaam ci boromam su fekkee nangu na loolu mu ne yàlla ka bi yonent ma xam mu ne xaq jaam bu nangoo ne war da jaamu kenn lu mooy yàlla xaqam mooy yàlla dugal ko aljana musal ko ci safara képp ku yàlla bind te fekk bëgg na la doo dee mukk te waxuloo ne laa ilaha illallah muhammad rasulullahi gëm ko képp ku yàlla bind ba nga dee waxuloo baat boobu gëmuloo ko yàlla la bind waaye bëggul la yàlla bind mbindeef yépp ci kaw mbëggee la leen bindee waaye it ba mu leen bindee sàkk na ci ay xaritam ak i noonam noonam mooy ña nga xam ne weddi nañu baat boobu yàlla na ne xadduwun lil kaafirina la moom mi bind ñëpp bëgg na ñëpp ci mbëggeel a xam gi waaye nag ñi weddi baat boobu na ne moom yàlla noonu na leen ku yàlla noonu nag dara du payam lu may ëllëg safar lay dëkk Muusaa wax na ko ne yow sama borom man day yéemu naa sa xam-xam bi sa xereñ gi sa yërmande ji nga bind lu tedde ni doomu aadama gannaaw bu nga di ko lakk ci safara man de xaw ma loolu na mën a amee yàlla ne ko demal bayi fekk Muusa am ndey doon mécceem mu dem bay toolam ba tool ba ñoree mu góob ko bojj ko fab pepp ma yëpp dugal ci magasinam fab xatax ba ak ak gattax ga yëpp mu rata ko ne ko durr jafal yàlla ne Muusa déet bay sa tool ba noppi di ko lakk mu ne tool bi li jaamoon njariñ yëpp fat naa ko lii ab xatax rek la ak gattax mu ne ko sa laa jàngoo ñi nga xam gëm nañ yàlla ñëpp yóbbu naa leen ci aljanna ñi nga xam ne bañoon nañoo gëm yàlla nag xatex ak gattax rek lañ moo tax ma di leen lakk ci safara ku yàlla dind te bëgg la dafa lay xiir ci nga wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah kum bind ba noppi xaaye la boobu baat dind la ba noppi wacc la wacc la ak seytaane mi nga xam ne safara la nekkal moom képp ku ko topp yonent na ne yéen ñëpp da ngeen dem aljanna lu may ku bañ ñu ne ana ku bañ aljanna yow yonante bi mu ne ku bañ wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah kooku mooy ki bañ aljanna yonante bi ñu indil teraanga ju rëy jooju ñuy jaamu borom bu mag bi nga xam ne borom bu dul moom amut moo mën a yëkkati moo mën a suufeel moo mën a teral moo mën a toroxal moo mën a joxe moo mën a xañe yonent mi ñu goreel ba ñu ne amuñu benn borom lu mooy borom boobu moom yonent bi nga xam ne moo gën way jëkk ak way mujj mooy ramm way jëkk ak way mujj ëllëg yonent yëpp Ibrahima ci ëpp maqaama Muhammad a ko gën Muusa ci ëpp maqaama Muhammad a ko gën Isa ci topp Muhammad a ko gën Muhammad moomu ñun muy suñu élimaan ñuy topp ci moom di julli nam doon julle di jàng téere bi wàccoon ci moom nam ko doon jànge di xoor mu doon xoore di tudde yàlla nam doon tudde yàlla di bañ lépp lum bañoon di nangu lépp lum nangoon ñun ñu yàlla jànge teraanga yooyu nañ sant yàlla yow jullit bi ma yàlla jàngle na la sa diine gën mboolem diine yi ndem beneen diine am na diine amoon na lu jiitu lislaam na am waaye ba lislaam sampoo ba tey beneen diine newu fi ku diine lislaam nekkuloo ci dara alquran a wax ne diine fa yàlla moo di lan moo di lislaam ne bëgg a jaamoo yàlla leneen lu dul lislaam yàlla du ko nangu te ëllëg da perte nit ñi yàlla jagle lislaam boobu ma ne suñ diina mooy diine bi gën ci diine yi te moo diine bi folli mbooleem diine yi ma ne suñ diine boobu moo am téere bi nga xam ne moo gën ci mbooleem téere yi yàlla wasal yàlla wàcce na téeméeri téere ak ñenenti téere wàcce na juróom fukki téere ci siisa caatalum aadama wàcce na ñett fukki téere ci axnoox mooy idris yonent yàlla idris wàcce na fukki téere ci yonent yàlla ibrahim wàcce na fukki téere ci yonent yàlla muusa lu jëkk tawreet ba noppi wàcce tawreet ak linjiil ak zaboor ak alquran muy téeméeri téere ak ñenanti téere téere yooyu la yépp alquran a ci gën alquran jooju yàlla jagle ñu ko ñu nekk xeet yi nga xam ne ñoo gën ci mbooleem xeet yi alquran a wax ne kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi nekk ngeen di xeet woo xam ne xeet wu yàlla ma a génnee yéen a ca gën lu tax da a gëm yàlla tey digle lu baax di tere lu bon ngëneel gi kat foofu rek lañ ko jëlee duut ci deret duut ci askan duut ci barab képp koo xam ne gëm nga yàlla gëm nga yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaa ngi diinewoo diine lislaam dugg nga ci ngëneel loolu képp ku diinoo lislaam gëmuloo yàlla ak yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokkuloo ci ngëneel loolu boo bokkoon sax ci bani haasim aboo lahab ak abdoulaye bàyyi yonent ñoo bokk rek bàyyi waaye aboo lahab bokku ci Abu Taalib mooy bàyyi yonent bi ko gën a bëgg gën a am ci moom njariñ waande bokku ci gannaaw boo xamee ne Salmaanul Farisi yi ak Sohaybu Roomi yi ak Bilaalul Xabasi yi ñu nga ca njalaxton la nga xam ne diine lislaam moom dàq na ay cosaan dàq na ay deret dàq na ay askan ñaari nit rek ñoo am ku gëm yàlla gëm yonent bi koo koy nit ku tedd mooy ku foor fa yàlla ku weddi yàlla weddi yonent bi koo koy nit ku torox mooy nit ku suufee moo fasoo texee di ëllëg ci àllaaxira maa ngi xeesalaat sama woote ci mbooleem ku dugg ci diine jooju ñëw leen dugg ci balaa ngeen a rëccu te fekk rëccu du jariñ maa ngi xeesalaat sama woote ñi nekk ci diine ji ne nañ góorgóorlu doole jàpp diine ji jëfe diine ji lislaam moo kowe lu dul lislaam jullit moo gën a foor lu dul jullit jullit moo war a moo wara a ci kaw lu dul jullit lu dul jullit moo war a ragal jullit jullit war a ragal lu dul yàlla suñ jàppee diine ji gëm ko ni nga xam ne noonu la ware leneen moo ñuy ragal waaye ñun duñu ragal leneen ñun ñooy tëkku leneen waaye leneen xelam du nekk ci tëkkuñu yàlla moom teraanga ak kan ak yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi ak kan ñi gëm yàlla kon nag ku torox rek da ngaa gëmu diine ji na mu waree waaye daal képp ku gëm diine ji yaa ngi ci taranga yàlla wax na itam ne su fekkee gëm ngeen yàlla te def ngeen lu baax te def lu baax mooy jëfe sariatu bi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa mooy def lu baax ne na su ngeen gëmee yàlla tey def lu baax yàlla dana leen samp yéen jullit ñi ci suuf ngeen xatte suuf si naka ñeneen jëkkoon xatteewoon ko Omar ibn Xataab ak ña ko topp diine lislaam rek lañ jàppoon waaye ñoo tegoon ci kaw àddina yépp ba julli ñi bàyyiwoo yoon lañ des gannaaw ba léegi suñ bëggee demati ca kanam jël seen place bi nga xam ne mooy seen place ci àddina si te mooy tegu ci kaw ñépp di àtte ñépp xelif ñépp nañ jàpp ci téere bi yàlla dëggalal leen liñ leen dëxal yàlla du nar ñun ñoo tarde suñ yàkkamtee li ñu yàlla dig nañu dem ci li ñu yàlla wax nañ gëm yàlla nañ jëfe jëf ju yiw mooy topp li sariyaatu santaane bàyyi li nga xam ne sariyaatu tere na ko yàlla de na wax ci alquran ne du may ku dul jullit mukk muy xam yoon ci jullit du may ku gëmut yàlla muy am yoon ci ku gëm yàlla kon nag képp koo xam ne ku dul jullit am na yoon ci jëm ci yow rek tuumaal sa bopp yàlla narul yow yaa defee gëm rek waaye gëm nag dafa am ay daraja daraja ah yàlla wax na ne yaay yaa ayyuhal lazina amanu amino yéen ñi gëm gëm leen kon gëm naa am na geneen gëm na ngeen gëm ba àgg ci gëm gi nga xam ne moo leen di may ngeen tegu ci lépp moo leen di may ngeen lépp moo leen di may kenn du am yoon jëm ci ci yéen xanaa yéen ngeen am yoon jëm ci kenn moo leen di may ku nekk ragal leen te du ngeen ragal kenn lu tumuranke la lu reelu la jullit ñi nekk ci jamono jile di ragal leneen lu dul jullit yàlla wax na yonent bi ci alxuraan te yonent nettali na ko ci hadis ne ko danaa sànni ay ragal ci xol yi ne la weddi ba ñi gëmut yàlla yàlla yàllaa ngi sànni ay ragal ci seen xol fuñ toll ñu ngi ragal ñu gëm yàlla yonent wax ci hadis ne nusirtu bi robo masirata sahara yàlla dimbalee na ma fan yi ragal ci xol yi noon yi lu mat doxab weer loolu nga xam ne yonent jàngatoon na ko ci jamonoom yóbbuwaale wu ko kat ci la ko bàyyi mi ngi ànd ak lislaam ba léegi képp ku gëm diine lislaam jàpp ci na nga ca war a jàppee ma ne lu du ku gëmut yàlla daf lay ragal roobu boobu mi ngi fi nekk ba tey te ragal yooyu moo xaat jullit ñi ci àddina si bennoon yi ak seeni dooleeg seeni pexeeg seeni jumtuwaay yi xalag seen jumtuwaay yi boom ak seen xalal ji bari ji di jeex ak ji li ñeeg seen doxadeeg seen ñàkk xam-xam ak seen fasantikoo seen ñàkk pexe lépp terewut ñi di jullit ñi ngi ragal jullit ñi fuñ toll te jullit ñi duñu ragal ñi di jullit jullit du ragal dara lu dul boromam ku dul jullit nag xaw yàlla dana ko ragal loolu moom ku ragal yàlla dootoo ragal lenn lu yàlla waaye ku ragalul yàlla itam da nga ragal lépp lu dul yàlla boo xamee ne sa borom bi nga waroon a ragal ñeme nga ko Namrod ibnu Kanaan moo fi ëppoon doole moom àddina yépp day amul frontière ba mu ñemee boromam yow tuuti la ko yàlla xiir yow ka halak ragal yoo ba mu bañee ragal boromam ragal yoo moo tax mu faraxalaku ndax yooye dañu dëkk ci nopp ya rek di boo guddee bëccëg mu ngi fu mu toll rek ñu ngi dóor ñu ngi koy dóor rek ndax yooyu dal ba ko noonu sappee mu ne sama bopp bi dal nañ ko dagg ma taxali ko yooyu benn yoon nañ ma tëggal bopp wurus ñu tëggal ko bopp wurus dama rafet ak moom ne ko bii baax na mu ne waaw ñu dagg bopp ba dox la fa xamul ne bu bopp daggee dootu mën a dund ragal yoo ko génnee àddina teewal mu ragal boromam te bañ a ragal yoo nañ ragal suñu borom lim ñu sant yomb na lool nañ def lim ñu digal bàyyi lim ñu tere lim ñu digal mooy góorgóorlu di julli julli juróom xoor weeru koor ku am xalal génn ci asaka ku am daal waxuñ la boobu wax ku mën a dem makkaay yi dem makkaay yi benn yoon ku ko mënut santuñ la loolu li yomb na torop li ci des ah, daganal na xaraamal na lépp lum la tere ma nga def ca wetam loo xam ne dagan na mën ngaa doy loola lew da bañ a dem ci li xaraam fii kay muccoog moom yomb na julli juróom soo boolee julli juróom yépp mën nga koo julli ci lu xees genn wàlli ndax julli bu ci ne mën nga koo julli ci juróomi minute te rek lañ kon juróom yépp mu ngi ñaar fukki minute ak juróom rek la la julliloo ci des bi matul sax genn wàlli waxtu nga xam ne moo bind fukki saa ak ñaar ci bëccëg fukki saa ak ñaar ci guddi muy ñaar fukki saa ak ñenant bu ko neexoon mu ne la jaamu ma saa yooyu yëpp wala ma yóbbu la safara waaye may na la saa yooyu yëpp nga di ko defe ci say soxla di ko toppe say banneex mu laaj la ci rek lu matul genn wàlli waxtu ne loolu moom julil ma ko soo bañee loolu boo dajeeg moom ëllëg te la budda da nga moom doo am benn lay mu bindal la ci weer ak ñaar yépp ci say soxla benn weer rek ci at mi mu ne xoor ko soo bañee loolu xoor gi itam waxul ne sax xooral weer wi yépp xamul ne ne weeru koor du weer wi yépp lañu xoor genn wàll gi rek lañu xoor bëccëg bi rek lañuy xoor li ko dale fi fajar xare ba fi jant sooyee ba jant sooyee ba ba fajar bi xar kenn wóorul nga xam ne bon fukki weer ak ñaar yi ñu bindal may ñu ko ñu di dox ñuy soxla te moom moom jant bee weer wi asamaan ak suuf moo la moom yow ci sa bopp moo la sàkk moo lay dundal bu ko neexoon mu xoor loola jamono lépp boo bañee mu yóbbu la safara xoor loolu la lu may genn wàll weer ci fukki weer ak ñaar ma ne soo bañee loolu boo dajeeg moom ëllëg te da nga dajeeg moom benn lay doo ko mu teg ca asaka asaka du dara lu may ku am alal ju bari nga dindi ci xaaj bu tuuti jox sa mbokk yi nga xam ne yàlla daf leen a xañ xamul dara loolu war nga bu la ko yàlla santu sax nga def ko ngir sa yërmande nga def ko yi sa jàmm ndax ñi am xalal ji suñ doyloo suñ téyewoon xalal ji xañ way ñàkk ñi seen xàq bu yàggee kat dafay jub sawra mooy ña daanu ji seen kaw rek ñoom it balaa ñoo dee li wolof di wax balaa ma wax ak malaaka wax ak nit su taxutoon ak asaka ngeen gis eh, góom yu bari xam diggante nit ñi waaye asaka teggi na loolu ba nga xamee ne waral na yow miskin mi kat amuloo dara waaye yàlla jox na la xaq ci xalal yi ki nga xam ne am na su la ko su la ko kooko joxut sax sa xol sa rek ci loolu xam nga ne sa boroom eh, eh, tëralal na la xaq jo xamne yow ya ko mom haj neeg ba itam ku ko man xoonam di neeg yeb ñu haj neegam ba ca makka ndax fofa fa mbolem mbooleem julli ci aduna yeb mbolem ñu gem yalla ci aduna fa lañuy ñuy di jaamu ben borom rek di top ben heliman mooy yonente bi sallallahu alaihi wasallam ñom ñep ñépp seen con lenn lay doon seen wax ben lay doon kuy arab ak ku dul arab ñëpp arab la ñuy wax foofa labbayk allahuma labbayk labbayk la sharika laka labbayk inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika laka ku dégg arab ak ku déggul arab yëpp arab la ñuy làkk foofa ngir bennoo ga ñu taxaw ci benn pak boo xam ne balaa ñu faa jóg yàlla na leen dem leen yéen ñëpp baal naa leen seen mboolee mi bakkaat te waralal naa leen xal jànn di fukkareeg malaaka yi nag naa leen seen leen sama jànn leen ku nekk fa mbay ko ak soxla yam bay ñew rek ngir sama jëm ci fi ci xal bi ci arafat jango dima tudd dima magal fédé seede leen yéen yi ne ñoom ñëpp goreel naa leen ci safara kon aj ñi ñang koy aji aji ñu ko ngir yalla seen njariñ lañ fay jëli yalla ñu dem leen aji ngeen da ngeen fàttaliku seen borom da ngeen gisit ay njariñ yoo xam ne yeen yéen koy jariñoo lii mooy li ñu lislaam sant yeneen yi mu ñu aaye yépp nag lu ci nekk luy fa farbakan la moo tax yàlla aaye ñu ko yàlla aaye na naan sàngara a ah, naan sàngara lu tax yàlla aaye ñu ko ku naan sàngara ba man di dafay tàggoo kam xelam mën naa rey boppam mën naa rey keneen te du ko yëg ba nag naan sàngara rey ba kanam ca xaraamal na njaaloo lu tax doomu adama yàlla daf ko bind ci fiir su fekkoon ni nim bërgële jut gi ñu ñuy xëccoo jigéen jatt ji noonu la ko maye doomu aadama doomu aadama ñoom dañoo bari pexe te bëri gànnaay kon ñoom dañu rayante ci jigéen ñi ci kaw fiir moo tax yàlla xaraamal góor gu nekk jigéen jiw doxut jabaram ngir léegi tey mu ñàkk ca bakkanam wala mu xañ keneen bakkanam yàlla xaaye na lekk yàppu mbaam tugal yàpp mbaam tugal dana sos ci yaram jàngaro yoo xam ne du bàyyi borom mukk te yóbbu ko àlaxira tax na ba xaaye gi ñu xaaye lekk yàppu mbaam xaaye dee rek la yàlla xaaye na rey bakkan ndax soo xamee ne rey nga bakkan boo reyee nit ay mbokkam yépp taxaw ci fexe laa rey say mbokk taxaw ci bëgg a fayu boobante ga diwee ba fu kenn xamut loolu moo tax yàlla xaaye rey lépp lu yàlla xaaye moom loram nekku ca lori kim ko xaaye moo ci nekk moom am nekkut ca maslaam kim ko xaaye moo ca nekk borom bi nga xam nag ne moo yërëme noonu moo xame noonu xam-xam bu yaa boobu li nga xam ne moom la tëral jógewut ci xelam kenn xanaa jóge ci ki sàkk mbindeef yi nga xam ne mooy ci xam-xamam sos mboolem mbindeef yi asamaan ak suuf ak li nga xam ne mooy daw ci kaw ak suuf yépp ci xam-xamam xereñam la jóge kooku kay lim tëral moo gën lépp lu xel tëral wooy jullit ñi nag tey ba nga xamee ne dellu nañ gannaaw bee loolu yàlla tëraloon ñu waññeeku ay góor yu xamul dara wala lañ xam lu gàtt la di leen tëralal lu huutu li yàlla tëraloon ñi di ko nangu wooy jullit ñi ba nga xamee ne ñi du jullit far ñoo leen di tëralal loo xam ne fay safaanawanteel seen diina ñi di ko nangu di leen yoonalal loo xam ne dafay fenloo alquran di fennoo yonent bi ñi di ko nangu way taskare yoy julit yoy julit day tax taxam yàlla di waxna wala n yajal allahu lil kafirina ala al muminina sabila اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما الفاتح لما الحق بالحق ولا هادي الى صراطك المستقيم ولا وآله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة سلام على المرسلين